chanter. yàlla dafa wàcce gàncax gi mu ñuy dundal te ñu wéeral Forever Aloe Vera mën ci mbayum aloe vera ci àdduna li koy firndeel distinction di raaye yi ñu am dafa bare te boroomi xam-xam yu bari ci àdduna ñoo ko dëggal Forever egsi na ci foire bu Dakar bi ak ay produits à base de aloe vera tous nos produits aloe vera sont testés dans des laboratoires de dernière génération les produits aloe vera sont présents dans plus de 178 pays dans le monde les produits d'aloe de Forever son number one dans le monde. waaw soxna ah. nuyu. sëñ sëñ bi ñu ngi lay fay macha allah. fii tey foire euh, internationale bu Dakar ngay présenté ay euh, produits aloe vera bu ma jubal. Mhm. est-ce que mën nga ñu ñëwalaat. Mhm. ci produits yooyu ak seen solo. macha allah. buur Coumba Ndoffène ñu ngi lay nuyu di la siyaar di nuyu waa Sénéinfo yëpp macha allah euh, di sant di gërëm ci ñëw gi ngeen ñu ñëwal macha allah di ci am mbégte kontaante di sant yàlla it ci représenté gi ñu représenté fii te aloe vera compagnie muy Forever Living Products fii ci foire international de Dakar macha allah liñ fi représenté muy société bi nga xamante ni li ko tax a jóg mooy xeex ñàkk ak wéradi ñu koy wax santé naturelle ak développement ñuy Forever Living Products nga xamante ni mu ci àdduna bi ba mu daj. mu ngi ci plus de cent soixante euh, dix huit pays dans le monde entier di def ay produits mucc ayib yoo xam ne cent pour cent naturel la soo koy jëfandikoo lépp li nga soxla ci sa yaram ci wàllum wér wàllu taar macha allah dina la ko jox mu nekk ay compléments alimentaire yi nga xamante ni lépp lu manque ci sa yaram nga xamante ni su manqué muy élément nutritif yi sax nga sa yaram bu ko manqué am jafe-jafe moom la lay complétel su ëppee mu wàññil la ko entreprise boobu nag tey moom lañ fi représenté ci fii di foire internationale de Dakar macha allah. kon boo déggee da nga def ay compléments alimentaires la. Mhm. maanaam kon seenu jël daal. Mhm. amul benn conséquence bu mën a ci négatif daal ci yaram. base bi aloe vera aloe ba den six mille ndax aloe vera am na lu ma trois cent soixante six espèces espèces yëpp aloe la may yéen ciy naan juróom rek la juróom yooyu nag bi ci gën a baax ñu koy wax ba barba densis miller moom lañ defaree suñu produit bi aloe aloe barba densis miller moomu nag moo am lu mat deux cent éléments composants lu mel ni douze vitamines soixante quinze nutriments dix huit acides aminés ak vingt minéraux élément nutritif yi suñu yaram soxla tan war koo am ci li ñuy lekk te lekk yi amatu ko ndax lan nañ koy bayee muy engrais bi nañ koy toggee muy huile végétale bi maanaam ak xorom su bari si suukar si bëri si ñuy lekk macha allah moo tax tey li ñuy lekk amatul élément yi suñu suñu yaram soxla maanaam ferñeent yi suñu yaram soxla mu waru ñëw suukar ba man ñu mën a mucc ci li jëm ci li mel ni constipation maanaam seere ba mën ñee musal ci lu mel ni problème respiratoire muy nooyi mën ñee musal ci lu mel ni graisse graisse bu bëri muy cholestérol mu ñu mën a mucc ci lu mel ni tension buy yëg wala muy wàcc muy hyper wala hypo étendu macha allah bañ mën ñee musal ci lu mel ni suukar macha allah muy jabet loolu yëpp ci li ñuy lekk lañ koy amee tey nag forever nag tey produit yi ñuy andil macha allah soo koy jëfandikoo dafay nettoyer lépp lu nekk sa yaram moo tax ñu ne purifiant la dafay raxas deret ji dafay purifier rein yi dafay purifier intestin yi mooy mbàq gi dafay purifier poumon yi mooy xatar gi dafay purifier cerveau bi mooy bopp bi deret ak yooni deret yi jàmm mu ne mooy li ñuy wax sang ak voie sanguine voie sanguine su ko purifier ba pare nag mu yemale yaram bi lu fa ëpp lu fa ak lu fa manqué muy diabète wala tension macha allah mu yemale ko somme de fer la antibiotique naturel la ah, lactatif la macha allah hydratant la dafay hydrater sa macha allah moo produit yi tey boo koy jëfandikoo macha allah lépp sa lu manqué sa yaram daf la koy jox lépp lu ëpp sa yaram da la koy génneel nga daal di am jàmm ndax médicament sans complément alimentaire une bonne complément alimentaire mënul nekk mais une bonne complément alimentaire nag complément alimentaire bu baax maanaam lekk bu baax dina la musal ba nga xamante ni da nga gëj hôpital allah te booy lekk-lekk bu baax boo amee feebar boo demee jël médicament da nga mën a wér waaye bu baax boo boo bu la dara jotee médicament du man ci yow dara ndax carence alimentaire moom xiif moom lekk rek moo koy jox moo koy wéral macha allah. ndax tey client yi ñëw ko noonu ak tey am na ñu ngi approprié macha allah am na ñu ko xam te yaatal ko bëgg ñi xam ko bu baax a baax moo tax ñu ñëw jël suñuy engagement macha allah en tant que chef entreprise ñu ñëw fii ci foire internationale Dakar. pour gën a yaatal visibilité bi pour nit ñi gën a xam Forever lan lay def ak ku ànd ak moom loo ci mën a am ndax tey buñu ne Mambusa Sakho madame Diop madame Diop sa Sakho ku ko dégg fii ci Sénégal rek dinañ ne ah bokk na ci manager yi gën a mag tey ci Sénégal ñu koy wax manager Essor macha allah moom la ñuy wax soaring manager kon li waral loolu mooy yaatal gi ñuy yaatal bëgg nit ñi xam ko ci kaw ñun jëfandikoo gi ñu ko jëfandikoo ba xam njëriñ bi ñu fas yéene baaxe askan wi yëpp ba ku ne xam njëriñ bi waaye suñ xamee njëriñ bi seen biir yaram nag duñ fa yem ñu ànd ak ñoom di leen gunge ci seen i projet maanaam seen i pourquoi fort maanaam kenn ku ne am na euh, objectif kenn ku ne am na lu la manqué ñi nga xam ne ñu ngi liggéey ñu ànd ak ñoom gunge leen ñu def ko mi-temps da ci am ay revenu complémentaire ñi nga xam ne amuñu liggéey ñu ànd ak ñoom gunge leen ñu def ko plein temps di ciy am ay revenu illimité macha allah moo tax boo àndee Forever di nga mën a am dund bu teey sa biir yaram waaye di nga am dund bu teey ci sa wàllu poos macha allah ndax wér moom boo ko amee te amoo wér amoo dara problème la mais boo amee it te wéroo jafe-jafe la ñaar yooyu nag mooy Forever. tey fii lañ leen fekk foire bu Dakar. bu mhm. mhm. feneen. waaw macha allah euh, euh, tey ñu ngi fii ci foire internationale de Dakar euh, ku ñu soxla mën nga ñu woo ci suñu numéro 77 553 99 53 wa illa nga def 3W maanaam nga def 3W buso aloe vera point flp point com boo soxla produit macha allah boo duggee foofu da nga fa fekk boutique bi. di nga mën a commander en ligne fay ak Orange Money wala ak Wave ñu livré la ko bu fekkee da nga bëgg a xam macha allah euh, lii di euh, opportunité bi naka nga ciy def ba bokk Forever ak ànd ak Forever ci liggéey bi ak ci produit bi am na euh, revenu illimix point flp point com soo ca duggee macha allah ci site boob di nga ko fa fekk macha allah wa illaa nga fekk ñun suñu bureau Cambérène de villa numéro 153. waaw ah, sa kàddu gu mujj rek ñu ngi macha allah alhamdulilah macha allah ñuy woo askanu Sénégal Afrique kurul Afrique yëpp adduna bi yëpp ñu ngi leen di woo ci opportunité bi nga xamante ni moo ëpp ci adduna bi ndax Forever mooy numéro un mondial ci ñuy bay aloe te di ko wesaare ci adduna bi waaye mooy numéro un mondial ci plan marketing bu solide bi nga xamante ni macha allah. ak diina boo mënta nekk rawatina ñun diina islam bi ñu nekk dafa méngoog moom ndax lan la jëfandikoo la ak yaatal li nga bëggal sa bopp nga bëggal ko nit ñi te ab jullit moom fu mu toll rek lam bëggal boppam rek lay bëggal nit ñett nit ñi mooy tax macha allah ak jullitam mat loolu nag moo nekk fóore wa ñu ci woo ñëpp ñu xeex li nga xamante ni moo fiy ndóol ñu jógee ci jëm ci koom ak weer macha allah Sénégal jëm kanam salaamaaleykum wa rahmatullah